dafa am ay nit ñoo xamante ne dañuy ne du sell ci ci sunu julli ñuy ñaan sunu borom ci wolof wala ci pulaar déedéet yàlla ñaan ko bépp làng boo làkk bu ne yàlla subhaanahu wa taala sunu borom dégg na ko bul ne nit ki fokk rek mu ñaan ci arab ñun sunu maam ñi déggu ñoon arab mais dañ doon ñaan yàlla nangu seen ñaan kon nag bu fi nekk di sonal nit ñi ñaan leen seen borom ci bépp làkk bu ngeen mun bu dee ci wolof bu dee ci Pël Fuuta barakallahu